ci biir armée bi yaa ngi wax ni foog ngeen tegaat changer un peu les paradigmes tey jii si euh, fan ngeen ko war a teg pour aujourd'hui tey euh, fu ñu nee jigéen fu ñu nee góor ci biir armée ne jigéen maanaam mu am parité ci biir armée bi waaw en fait euh, lu ñu mën a wax par rapport ak égalité bi mhm. des na ça c'est partout je mhm. pense du du seulement au niveau des armées mhm. et armée mooy institution boo xam ne c'est très masculine mhm. euh, comme je l'ai dit à partir de 60 jusqu'en 84 mhm. c'était exclusivement euh, masculin e dañ ko euh, soo xoolee armée dañ ko teg si euh, c'est la défense on a une mission de défense des territoires et qui parle de défense force ngay njëkk xalaat te qui parle de force aussi kan ngay njëkk a xalaat entre hommes et femmes c'est les hommes góor ngay njëkk xalaat donc le fait que jigéen ñi dugg biir armée pour yenn góor yi dans leur entendement day wàññi peut-être doole armée absolument waaw c'est ça donc nous notre rôle en tant que euh, division genre des des, des armées mm -hmm. c'est de pouvoir comme li ma la wax mm-hmm. changer les mentalités pour leur faire comprendre mm-hmm. ñu mun a xam ni mm-hmm. fu góor mu ne am wàll ci armée jigéen war na fa mun a am wàll léegi nag le le problème euh, ou bien euh, ce qu'on préciser mooy ku si nekk am na wàllam biir armée ku nekk war na mën a gis boppam biir mm-hmm. armée mais ku si nekk ak liggéeyam mm-hmm. parce que su fekkee ni euh, jigéen bi mun na apporter loo xam ne mm-hmm. beneen góor mënu ko apporter dama joxe exemple nii rek santé jigéen am na fa am na fa wàll mun na fa def ay jéego euh, renseignement mm-hmm. euh, transmission l'informatique intendance génie mm-hmm. y a beaucoup de domaines yoo xam ne mm-hmm. armée de l'air mun na nekk pilote y a des pilotes euh, civils féminins y a des marins féminins mun nañ nekk dans l'armée donc ñun suñu ñëwee on apporte notre compétence notre qualification pas forcément jël jigéen bi rek def ko au front pour mu dem guerre déedéet ku si nekk war na mën a apporter loo xam ne sa morom aussi euh, apporte leneen mhm. mais ñun ñëpp ñu nekk un ensemble boo xam ne dañuy bokk euh, euh, atteindre butu armée mooy la défense te défense boobu il ne s'agit pas seulement dem xeex mais il tout a toute une logistique jigéen ñi nañ bokk si mm. logistique bi ah soutien bi administration technique pour soutenir mhm. ceux qui sont au, au front. Absolument. point que je voulais euh, ajouter, mhm. euh, je pense que docteur Sélé l'a dit tout à l'heure, mhm. affaire bi moo ñaale la. C'est-à-dire du armée mooy ñëw changer nit ki. da ngay ñëw avec tout ton background de l'enfance, ton éducation. soo ñëwee du armée moo lay changer. mais il faut que nga comprendre ni armée am na nu muy doxee. que léegi désormais du armée bu góor kese mais il faut ñu jël en compte. góor yeeg jigéen ñi mm-hmm. le plus important aussi mooy jigéen na ñu xam seen seen euh, seen wàll mm-hmm. seen gëdd mm-hmm. que mën nañu apporter ñu gëm seen bopp moo tax leadership boobu day ñëw aussi parce que dans no thématiques de de sensibilisation nee naa dañ dee sensibiliser dañ dee dem partout dans toutes les zones militaires euh, zones 1 jusqu'à zone numéro 7. Mhm. Euh, dañuy dem di sensibiliser léegi y a un programme boo xam ne. moom la ñu valider moom le commandement bi valider pour que ñu utiliser programme de sensibilisation boobu. c'est sur les concepts genre ñu comprendre dans l'armée genre mooy nga réussir mhm. épanouissement homme et femme militaire mhm. ñun noonu lañ ko kiyee une harmonie un équilibre de commandement et de traitement pas d'injustice pas de, euh, comment, de paternalisme, parce que parfois aussi on peut avoir un commandement paternaliste, parce mm-hmm. que nous nous dans notre mm-hmm. culture sénégalaise, mm-hmm. yi en général, il y a cette protection dara C'est naturel. Ce qui fait que parfois, si nous demee bango, euh, avant, ce fait que entre Gori et woon dañuy avons Mais jigéen avec les gens, di nga gis yenn góor yi dañuy am xolu yërmande empathie bi ñuy am si jigéen ñi. tamit des fois merci il y options. <laughs> am na ñoo xam am dañu ne jigéen dañ ñuy tardel am na ñoo xam ne par contre euh, suñ gisee jigéen am jom. Mm-hmm. fulla dañuy gën a am. waaw parce que man je me rappelle def demoon nañ def yi benn sensibilisation premier bat. Mm-hmm. colonel man daal su ma gisee jigéen def lii buy buy euh, def sport euh, def tuuru bataillon di sport mhm. mu ne même su ma doon meloo ma seen ko ne damay sol sama daal <laughs> donc am na aspect aussi bu positif la fait uh-huh. que jigéen yi ci biir nekk ci biir mais c'est à nous aussi oui. de montrer que nous méritons ouais. cette place ouais. dans l'armée leadership boobu mooy wax noonu dafa am importance mhm. leadership féminin bi mhm. maa ngi doon wax euh, affaire programme de sensibilisation bi donc il y le genre concept genre qu'est-ce que c'est l'égalité qu'est-ce que c'est l'équité quest que c'est le genre dans les forces armées parce que ñun aussi dañuy obéir benn orientation bu ñu commandement bi wax ne nañu euh, genre mooy ngeen def de telle sorte que ñëpp gis seen bopp dans l'armée amul xaaj ak seen jigéen yeeg góor yëpp ku nekk loo mën a apporter nga def ko mhm. dans le meilleur dans les meilleures conditions possibles l'autre l'autre euh, module de de formation mooy euh, les notions de base, santé mhm. sexuelle et reproductive. Oui. C'est extrêmement important. Absolument. Donc, il y a des gynécologues du service de santé des armées mhm. qui ont réfléchi sur un module très simple, très précis. Expliquer, euh, euh, module B, en fait, d'expliquer, surtout les filles recrues qui mhm. viennent d'arriver, comment faire de telle sorte que ñu mun a euh, comprendre seen corps. que ñu mun a aussi comprendre que Quand, tant qu'elles sont PDL, c'est-à-dire pendant la durée légale, elles peuvent pas tomber enceintes. Mhm. C'est dans les textes. Quand tu dois rejoindre l'armée, da nga war a nekk célibataire sans enfant. léegi soo nekkee si biir euh, deux ans yooyu mooy pendant la période légale nga xam ne après war nañ la mën a engagé. Mhm. waroo tomber enceinte. parce que soo tombee enceinte tu n'es plus opérationnel. armée c'est euh, la disponibilité opérationnelle en mhm. tout temps et en, et tout lieu. donc notion de base yooyu dina permettre. jigéen ñi ñu gën a comprendre euh, comment concilier vie professionnelle et vie mm-hmm. euh, personnelle mm-hmm. l'autre module c'est la prévention des violences basées sur le genre donc tout ce qui est harcèlement euh, abus etc mm-hmm. on apprend aux militaires comment faire la prévention comment faire euh, la différence entre un ordre militaire qu'on donne et un d'autres types d'ordre qui peut exister hein? xam nga li ma bëgg a wax mm-hmm. donc il euh, euh, y a un autre module mm-hmm. qui euh, parle du leadership féminin mm-hmm. parce que le leader le leader féminin on n'a pas besoin d'être gradé pour être un leader même le militaire du au plus bas niveau peut être un leader pour son plus jeune parce que su fekkee ni tu as cette capacité d'inspirer l'autre par ton ta bonne tenue ton bon comportement ta bonne discipline dans l'armée mhm. keneen ki mun na roy yow mhm. et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le, le militaire idéal ouais. donc toutes ces modules tout, tous ces modules là mhm. pardon dañ ko def dañ ko tënk def ko programme de sensibilisation fépp fu ñu dem loolu la ñuy transmettre te à long terme ou à moyen terme mun na def déclic mhm. sur beaucoup de de euh, mun am impact mhm. par rapport à la mentalité du militaire pour l'acceptation de l'approche genre dans mhm. les armées si kanam tuuti dinaa la tooñ tax dañuy dégg ñu ne euh, ñii sol tenue moom euh, pour ñu am jëkkër problème la parce que dañuy bëri principe surtout yaa ngi wax sànq ñiy dugg ci armée bi du ñu ñëw du ñu am doom du ñu am jëkkër avant ngay dugg ci armée non loolu yëpp dinañ ci dinañ ci ñëwaat je vais je vais préciser <laughs> je vais préciser y a en fait <laughs> euh, deux voies d'entrée dans mm-hmm. l'armée par le recrutement mooy li ngeen di dégg ni ah, recrutement bango ñoom la yo yóbbu bango mm-hmm. peut-être le niveau est plus bas mm-hmm. il y l le recrutement par les par euh, les voies de concours les grandes écoles l'ENSOA c'est-à-dire l'école des sous-officiers donc on a, euh, pendant que tu es à l'école oui. c'est pas permis Absolument. mais après oui. beaucoup se beaucoup se marient même avant avant de, de, sortir de l'école hein? <laughs> hein? Absolument la plupart de, de des officiers féminins que je connaisse elles sont elles sont toutes mariées donc il y a pas de problème non non non ragaluñu bariwul leen ay principe ci kër ga non non joxe ay on reste des femmes non non on reste des femmes tant que ñu ngi ci biir armée mhm. on essaie autant que possible de respecter les mooy rester des femmes. <laughs> waaw on reste des femmes c'est-à-dire. ki féministe c'est-à-dire waaw moom féministe la. <laughs> day toog ak <laughs> on est des militaires. waaw autant que possible. absolument suñu delloo nag suñu ah. la maman la sœur. def ay robe ay tay baas ak yooyu. oui on porte ça. waaw. <laughs> gis naa greffage bi. waaw gis nga greffage bi par exemple. <laughs> merci alors. sànq. réclamé maquillage. moom laajul maquillage maquillé wul léegi. réclamé na ko de.